ci wàllum napp gi jëm na ci wàllum sàmm ji nga am ci wàllum mbay mi ñi nga xam ne ñooy waa Sonacos jamono ji sonn nañ ba mara ndax Sonacos bi nga xam ne moom la ñu yebale ngir mu war a jënd gerte gi jamono ji maanaam kenn jaayu ko gerte ndax askan wi dem ci luuma ci marché bi maanaam yóbbu fa seen gerte ndax état bu Sénégal 275 la wax ne moom lay jëndee gerte gi te gars yi ji ñoo koy jaay lu toll ci 400 francs journal bi nee na waa Sonacos ñoom li ñuy ñaawlo mooy concurrence bi nga xam ne maanaam ñoo ngi ko am ak chinois yi te nag loolee état bu Sénégal moo si a jël ay matukaay yéenekaay gi moom xëy wax ci lu jëm ci wàllum essence bi nga xam ne yokk nañ ci cent franc ci litre bi waaye tamit gasoil bi nga xam ne yokk nañ ci cent bi nga xam ne yokk nañu ko ñi nga xam ne ñooy transporteurs yi maanaam jaaxle nañ ba mara détaillé ki nga xam ne mooy Momar Soran moom nag nee na jamono ji li nga xam ne moom la ñu xalaat bu dee état bu Sénégal waxu ci lu mel ni midi maanaam dem bi dikk bi dañu koy gàllankooral maanaam dañu koy taxawal te subvention vingt-cinq milliards yi nga xam ne état bu Sénégal wax na ko ñoom gëmuñu ko ndax nee nañu état bu Sénégal maanaam jàppale wule waaye nag da leen a seetaanam Lamine Fall mi nga xam ne moo jiite taximan yi nekk ci Grand Yoff moom nag nee na jamono dem bi dikk bi maanaam transport yàqu na fini julli tubaab ba journal bi di enquête nee lu jëm ci wàllum courant bi électricité benn fan ci weeru janvier atum 2023 ko yokk yéen a kaay gi de la ñoom mer nañ ba mara détaillé ndax ni ki démb dañoo bëggoon a amal rassemblement ca place de l'Obélisque ñu tere leen ko préfet bu Ndakaaru moo fa jaara waaye nag ñoom nee nañu dégg nañ moo la préfet bi wax waaye nag ñoo ngi ciy bàyyi xel ajuma ji nga xam ne département te ma la nag préfet dafay mën a yebal ay takkadeer mu ñëw ñu encadré ñu wala nag ñu daal di jàmmarloo maanaam autorisé wala jàmmarloo loolee la ndaw yi Yewwi Askan Wi wax naka yéen kay gi di Vox xëy na jukki ay ponko ci waxtaan wi nga xam ne moo doxoon diggante Ousmane Sonko ak France 24 ak RFI Ousmane Sonko wax ne ci mbiri Adji Sarr ak test ADN bi nga xam ne nee du ko defan ndax li ab complot boo xam ne bu bu leer la moom Ousmane Sonko nee na France ci boppam dafa war a xoolaat position ma ndax ñun dañoo gis ne maanaam Macky Sall la àndal Ousmane Sonko nee na amul benn réew boo xamante ñun li ne daal moom la ñu wax mooy ne gaña gaña maanaam ñun dàq ñu ànd ak benn réew waaye réew nekk daf ciy gis sa bopp moom jiitul bi naan opposition bi nekk Sénégal dañoo bëgg ñun bëgguñu nga xam ne moom la ñu wax maanaam gagnant gagnant kenn ku nekk gis ci sa bopp yéen kay gi de la quotidien ñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko nee na mu nekk am na sañ-sañ tànn ban réew la bëgg lëngool la bëgg defal ay coopération yéen kay gi fo Ousmane Sonko ci RFI ak ci France 24 wax na njombe yeeg scandale yi nga xam ne jegeñaale Macky Sall yi ñoo def ak justice bi nga xam ne moom la Macky Sall nag di lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature jii Macky Sall bu bëggee ñëw nekk ci situation boobu maanaam loolee gàcce la yéen kaay gi du l'observateur mbir moomee wax ci parti démocratique sénégalais xam ne jamono ji dafa daal di yëngoo ndax Karim Wade dañu ko daal di heurté la bëri yoo xam ne ñoom nag ne nañu Karim Wade na dellu si si réew mi wala nag mu daal joxe place am jamono ji ñoom ne nañu ab congrès la ñu bëgg waajal élection présidentielle 2024 soldats ivoiriens yi nga xam ne tegoon nañu leen fa loxo 30 décembre bii ñu génn la ñu leen atte ba lu toll si ñaar fukki ati kaso waaye ki nga xam ne mooy Assimi Koïta daan na leen di gracier maanaam jéggal ne leen bàyyi ne leen yéen i kaay gii di leen foo xëy di ñu xibaar naa ñu lu jëm ci mbiri Pape Alé Niang ba léegi pënd bu gureeku la dasu xam bi na am na organisation ak lu toll ci 78 journalistes africains yoo xam ne ñoo ngi sàkku ñu laa di koy bàyyi yéen i kaay gi délibération yóbbu ñu diwaanu Mbuura ca bii ñu naan su mën a am na benn franco sénégalaise boo xam ne dañu ko fa raye bu tudd Maama yéene kaay gi nee na gendarmerie moo teg loxo ñaar ñi nga xam ne ñoom la ñu jot na ñoo ko rey kenn ki ñaar fukki at la kenn ki ñaar fukki at ak benn yéene gi nee na kenn ki musa Diop la tudd kenn ki Moustapha Diop kenn ki sax doomu Mansour Diop bu Sen TV la yéene kaay gi nee na ñaar ñi nag kenn su ñoom fekk nañ fa téléphone Marie Rosalie Ngom mi nga xam ne dañu ko daal di fàtta muy yéene gi di réew mi ko di jeexëy seeq waxtaan wu yaatu ak ku ñuy wax Moussa Dia ñu koo xam ci Moussa Versailles moom nag lu jëm ci wàllum mode wàllum styliste si la yëngu ak wàllum création wax na ci lu jëm ci wàllum modèle émission bi nga xam ne moom la ci def wax na ci parcours am ci biir journal bi di réew mi quotidien wax na ne Sénégal ñi nga xam ne ñooy tër yi stylistes yi maanaam am nañu talent bu mat sëkk stylisme ci Sénégal ma ngi dox bu baax a baax ndax askanu Sénégal dañoo bëgg a solo wax na tamit projet yi nga xam ne moom la mëbët yéene kaay gi di sunu lamb ñu koy fekk fa pambay di expert xelam màcc jëm ci wàllum lamb nee na Zarko ak Adafa cinquante cinquante la cinquante cinquante la ci bëre bi cinquante cinquante la ci xeex bi société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen de presse